mais gouverneur dana jël euh, dana joxe instruction préfet yi pour ñu gën a dëgëral euh, dikk ñëw gi ak dikk bi parce que ñëw gi ñëw gi ak dikk bi mooy indi cas communautaire yëpp ñun ñëpp toogoon fi ñu dëkk du law ci Sénégal. docteur toogoon na ñaata fan toog nañ 21 jours wax amuñu woon benn cas donc ñooñu ñooy ñëw. Euh,

fu ñu nekk ak nga seet di fa ñu est-ce que maladie ba amul foofu bu ñu fa amee boo amee tuuti seetlu rek mun nga dem prélever leen xool et loolu moo tax ñu ñu diagnostiqué malade boobu. c'est pourquoi ñuy def c'est pourquoi ñuy def recherche active de cas parce que waxuñ ne gi amatuñ cas mais waxuñ ne amul à la coulée il faut que maman am day cas communautaire parce que man euh, feebar baa ngi partout. tous les jours on fait plus de.

Donc ça aussi, ça peut arriver. Donc c'est pourquoi nous demandons à ce que quand tu as un signe grippal, nous manifester auprès des services de santé. Nous devons en charge, services de les plus dal, lu wara dem ci war lu ñu wara def ci ñom dañ ko def ndax mu ci ah, docteur dispositif bien sûr le préfet d'ailleurs depuis hier nuit nelawul hein depuis hier nuit préfet non seulement il a euh, def na malade ñi euh, en contact avec le malade bi ñu confirmé mu yóbbu ci hôtel yi ñu leen après nag tracé di nekk ci guddi gi di en contact yóbbu 14 rek laa leen waxagul waxagum mais dana yokku parce que ay ay disposition ci marché yi dañu leen ay disposition ci dajaloo yi ci rassemblement yi ci jumaa yi yëpp préfet mais en accord avec nak ndax lépp lu ñuy def dañ koy nekk en accord avec Khalif général des tidiane